pour à côté ay xale yu beige ay xale yu beige cëm Terre rek ngeen di dee tey rek ay beige un maximum de bruit pour le groupe Safari Je leen ñaari micro bi yes saay. sama gars yi naka la yéen a ngi koy enjoy. léegi nag sama baay dama sama gars yi dama bëgg lenn. xam ngeen liñ naan sigidi daan dee doo. sigidi daan dee doo. xam ngeen liñ naan sigidi daan dee doo. sigidi daan dee doo maanaam ngeen body mu las. seen yaram mu las. fête de la musique la. Defa, waxal ma leen safari nyono, na mayal ma leen inaata ñu xool sama gars man mën ngeen inaata xam ngeen ko bu baax eh borom sigi di daan delloo ngi ni eh bàyyi sa body mu las ma <laughs> respect wa ma ne ñi ci kaw mais est-ce que ça va bege ma ne est-ce que ça va yéen a koy sentir est-ce que mu ngi las fii mu e <laughs> Clayton moo fi las Clayton xam eh, yaa fi las ana ñi seen chocolat yaa e wala fële la ah, DJ DJ ñu dem xool let's go <laughs> bu dara sedd waaw dëgg dëgg la man hmm, safari di wanaata dégguñu leen dégguñu seeni bodi mu las de côté bi hmm, safari di wanaata ngari lan dëgg ah. waay ana chocolat ya karame am chocolat rek sa loxo na kaw may gis loxo yi tout le ci ba mu neex mon coco. mon chocolat. dégg nga ci kaw bëgg naa leen dégg sama gars yi. tey ñu dem ci ba mu neex mon chéri. waaw. bëggante ba mu jeex foog ñu lew too foog ñu lew too ku si jekku sa morom rek yóbbu But. Yes, I. Yes, I, guy. Yene chocolat. Hey, eh, puis chocolat, eh, na. Yene caramel. Hey. Yeah. Wa never forcing lañ wax. Ñun duñu forcer dara te yeen kenn never. Dara. No no, dama ne yeen kenn du leen forcer dara. Dëgg wala? Kon nak wa kon duñu forcer dara dañ koy def rek mu las. فرسه بابا انا دیگه نی انا گلتایی انا مالی انا رویال مالی آنیپا chikotebe ma jeg bi re ci kër gi def ci goowe man bombo bombo une belle africaine belolo général de sexy belle c'est comment me je suis comme une déesse comme une besoin de forcer je suis déterminée akamaman je côté je côté forcé. Aïe, aïe, aïe, aïe. Faut pas forcer. Copier-coller. Aïe, aïe, aïe, aïe. Faut pas forcer. Faut pas forcer. Faut pas forcer. Ham me classe une conforce. Lo beauté du comaye. Nena lo moi tour me ruiné. Lo beauté du comaye. Man akama man. Bari dugu dugu. Atende do. Fune fune lai jar. Beta. Akamade. تحت الجوه بقلبي الرند كلبي تحت البندة أكا ماما مش كتبي أكا ماما مش كتبي

Khadija Khadija ya en direct King FM Dakar 99.4 étudiants yaa ngi mais amna ñu leen di déglu fête de la musique lan ngeen di wax étudiants yu Dakar. waaw sama gars yi merci beaucoup encore une fois Bexien. ci ndax safari ak étudiants yi moom lu yag la donc gis nañ support bi donc tay nak c'est la fête de la musique ñu gis daanaan ñu bari ñëw yéeg ci kaw plateau bi voilà donc loolu yeb c'est grâce à vous merci pour le love voilà yalla Sénégal jëm kanam jàmm yag fi. jaa ngeen di leen bëggee di leen wax ne ay jàmbaar ngeen ay jaaykat ngeen ay bañkat ngeen fi ngeen nekk foofu la door waar ba xëy dee yes sir on de tout cœur avec vous l'avenir de demain c'est vous jaajëf lañ gëm kon nag yàlla rek wala bokk what's up bu nuy las na kon neex na sama gars yi xam ngeen na merci <laughs> dañuy remercier suñu frère moom kenn dootu ko présenté ci liñ koy ñaanal mooy wér gu yaram gudd fan li mu def si aar bi xam nañ ko yàlla na gën a yokk ndax Sénégal mi ngi jëm kanam te ñi koy jëmale kanam moom si la bokk kon one love merci bro one love merci beaucoup merci kii kii non dafa yomb torop dafa yomb torop waaye lu ngeen bëgg si Maria Maria kaay Maria nee sa baat lañ bëgg dégg kay tàccu len Maria ma xol est-ce que duma ko tipo sax. Maria waxal ak gaay yi. Eh, sama gaay Still bu bes flow you bes gel bu neex get ko set ñi naan ki moy kan. man my sister Maria. Yes, iya, sir. Maria. DJ. DJ dañu sonn de. dañu sonn da ngeen sonn waaye ñoo leen gën a ah da ngeen bëgg a a cappella. amul problème ñun ak yéen ba 5 heures du matin. mais Awadi ban ngay ya, wax. non nah, dañu Awadi mu leen di tooñ de ban sonn lay ya, wax. non nah, da ngeen sonn. man booy déggoo leen yow ku la gis. déggoo leen daaj. waaw waxal ak gars yi gars yi dégg baat Yeah, yeah, I'm a old bro, big white, big, and a big fight. Me this one, get my name, make it, believe me again. Fill my girl, send, village be digital dealer. You think about for we, but for me people. people no say, oh, be oh, still no we. We can suffer in the loop as they gonna land. They get suffer, they get push, the deuce, you lose, they boost my send. Got no making, no check it, they repeat. Hey, hey, what's up? Yeah, they're fine. Ooh, oui. Non, merci. one love one love léegi